une élaboration donc d'une loi bu nga xamante da koy permettre état bi nag mën a am un regard sur les entreprises seen capital et su jaree si soutenir leen ak sécuriser leen ba nga xamante ni entreprises yooyu noonu si secteur stratégique yooyu véritablement Sénégal dina ci mën a am doole njàngat mi ci décision bi nga xamante ni le président de la République am na ko te loolu tukkee ci conseil des ministres bu tey bi. mais mais euh, maa ngi gis. Euh, dañu nekk ci ci boo xam ñun ñëpp dañoo yàkkamti. Mhm. change dañ maanaam dañoo bëgg lépp changer rapidement. mais mënut a ne. Mhm. ça va mais y' a quelque chose qui me plaît dans toute cette moo di chaque conseil des ministres. Mhm. on s'en se la là. d' améliorer quelque chose. exactement te ñun loolu la wër. gars yi yàgg nañ fi ci ay nguur jaar def discours def kii am na ci lu baax am na ci lu sooke. mais cette passion là de tout de suite. il faut ñu nekk ci. moo justifier la présence d'un ou des ministre sur le terrain nga déglu Abdourahmane Diouf discours bi déglu Girassi déglu ma Mabouba Diagne déglu Serigne Gueye Diop déglu déglu nga ne c'est bien parce que ñooñu ñëpp ci benn moule bi ñu nekk la waaw moule boo xam ni dynamique bi moo imposé loolu c'est-à-dire ku ci nekk sax nekk fo fo si tu fonctionnes pas comme ça ñaaray am soit tu vas te ridiculiser wala da ngay génn donc tout le monde est obligé à d'être beneen muul bi fi nekkoon muulab xam nga lan la. Mm. bon tu fais cest dire que tant que tu déranges pas le patron dans ses trucs à lui. c'était pour plaire vraiment le prince quoi. waaw moom nay ah, moom nay <laughs> ah, li ci des yoon nekku ci. loolu nag moo soppeeku moo tax lii kilifa bi wax c'est à l'image des grandes nations où tu as un état fort. Mm-hmm. et la force de cet état. c'est parce que un peuple l'a renforcé et conforté. Hmm. léegi état bi nag moom dooleem mu ngi nekk ci toujours nan laay def ba rendre fier ce peuple là qui m'a élu. waaw <coughs> je le fais je vais fort. Hmm. jour bu ma leen sàgganee damay wayati. waaw et je pense qu'ils l'ont compris. léegi nag tey jii nii bu waxee waxi entreprise yi au niveau stratégique. Hmm. moo di foo xam ni la consommation de masse dafa am yitte. yitte ba mu faa am. il faut nga sécuriser que. waaw. moo xam dañuy lekk moo xam dañuy naan moo xam nangam nangam. Mm-hmm. mais il faut aussi aussi faire de sorte que entreprise y nekk à ce niveau là. Mm-hmm. nekk à jour. ce que j'entends dans le discours du président par rapport à ce conseil vis-à-vis de cela c'est quoi c'est une mise à jour générale de toutes les entreprises au niveau stratégique mm-hmm. na ñuy def ba ñu bien te duñu sonal population yi te ñoom duñu yàqule c'est ce qu'il faut comprendre intention bu baax la. Mhm. il a demandé au premier ministre de s'y mettre et de veiller. Ouais. et je pense que euh, dina baax. loolu dina baax Sénégal dafa yàgg a jooy kenn ne entreprise yi nga xam ne ñoo contrôler économie bu Sénégal mais ay doomu Sénégal daanaka moomuñu ko wala nekk ñu fa lu bëri. lu ci ëpp gars yi dañuy ñëw rek def ñu seen euh, benn vache laitière bu ñëwee root ba kii rek yóbbu seen dëkk. si aujourd'hui le président veut avoir benn regard. daf leen di concurrencer bien sûr. boo jëlee Auchan yaa Seydi Alioune. Hmm. Auchan ok euh, avant c'était frappe dégage nangam nangam France hmm. dégage. Hmm. mais Auchan ok amul problème vous êtes là travaillez y a pas de souci mais nous faisons revenir les boutiques témoins dont on parle. la Sonadis ancienne. faisons de sorte que. société d'alimentation générale bi ñuy bi def bi ñuy jox ration alimentaire c'est-à-dire que Sénégal ci wàllu soppi suñu dund ba ci suñu ay marché yi ci mbedd mi mhm. il faut que ñu changer affaire bi ba nga xam ni le sénégalais dootul toog ne yowee eh, demal jëndal ma takku naana mhm. yow demal ci boutique bi mu jox la mu jox la pëndax meew tu vois mhm. eh, demal nga ne ko sama yaay nee nga jox ko benn potu meew le sénégalais doit fonctionner en termes de provision ah weer bi chaque quinze jours il faut ñu dem marché ñu dem jëli ration alimentaire indi. Mhm. am na fu ñu kaa fekk. les li ma dégg ma Mabouba Diagne di ko wax agriculteurs yi. waaw fonctionner en coopérative. mais looloo amoon daal le temps. waaw jamonoy onkat. waaw loolu la woon di. <laughs> coopérative yi baykat bi am xaalis. ñëpp am xaalis dëkk bi neex. Uh-huh. mu fekk train bi ak raay bi di fonctionner. Mm-hmm. bu ko defee gars yi gaaroo gaar mm-hmm. affaire bi di jàll producteur bi day bay jaay ko ci gaar bi léegi day bay nii gox jaay ko léegi dem yoonam. mu mën a transporter encaissé gérer. Mhm. mais léegi waa ji day jaay ba pare toog di xaar ñu naan ko waa état bi dina ko jënd état bi war a toog di teg ay conditions yu mu kaa jëndee. ak prix. donc aujourd'hui je pense que cette dynamique la mhm. nii nii de conseil en conseil. Mhm. mën na mën na transformer les choses petit à petit sur quarante cinq jours sur cinquante jours sur soixante jours bientôt jàpp quoi trois mois. Mm, 64 jours ou 65 ou 66 mm. je me dis que il s'est passé tellement de choses ouais. au point que ñun ñun ci yàkkamti beeg euphorie beeg yëpp on ne se rend pas compte que mm-hmm. CMU état bi daf ko ameloon xaalis c'est en train de régler mm-hmm. dix milliards déjà quarante milliards pour baykat yi euh, les boursiers et étudiants mm-hmm. <laughs> le secteur privé la dette intérieure waaw léegi loolu sur ce temps record là sur trois mois je me dis mais c'est génial. en tout cas vitesse bi ñuy demee nii suñ ko accéléré fii ak juróomi at mais quand le président de la République dit dans ce conseil des ministres là au premier ministre il faut ñu dem dans cette logique rapide d'industrialisation. waaw mmh, ouais. ça veut dire quoi non li nu bay nii nañ fexe fii ak mm. année prochaine ñu mun ko mm, industrialiser. waaye di ko mën a transporter transformer suñu bopp. Euh, là quand même moom mooy dëggal souveraineté bi nga xamante ni soxla na ko. et loolu. et là ci dogu ah. oui loolu il y a l'influence certainement e et et prompte de Serigne Gueye Diop. Mm-hmm. le ministre du commerce et de l'industrie qui a eu à faire des réalisations intéressantes à Sandiara Sandiara waaw. soo jëlee dynamique parce que nañ bàyyi xel benn affaire. Mm-hmm. regardons tous tous les ministres qu'on a ñu ci ëpp. Mm-hmm. nekk am na vécu d'avoir réalisé quelque chose. cest à boo de visu. Mm. ku si nekk am na lu mu réaliser. waay mm. loo xam ni xam nga ni teg na dara. Mm-hmm. c'est différent du ministre bi ñuy teg moom ne ko ndax am nga base politique. waaw waaw est-ce que yow sa gox mbooloo mi topp nañ la. wala soo gañewul sax à quelque soit sa compétence moo gome la. donc la donne change et ça évolue moo tax man jàpp naa ne une opposition intelligente actuellement. Mm-hmm. elle doit être de contribution dans le sens où et d'alerte. Mm-hmm. fu gars yi fàtte wala xaw kii ñu ne ah gars yi attention n'oubliez pas que bu ko defee gars yi ne oui c'est vrai ils ont raison. Mm. et non nga taxaw je vais m'opposer oui <laughs> mais à la place mettez des idées parce que avant l'opposition était obligée de combattre parce que dañu mm. tegaloon terreur. Mm-hmm. quand maintenant vous avez un pouvoir qui vous propose des idées et du contenu mais vous débattez vous contribuez dans ce sens-là. te foofu la opposition bi war a dem et noo nekk ci benn bas de boo xam ni mm. dafa leen di gën a suufeel te bu li gën a garaaw li gën a garaaw bu sax opposé wu face à un régime mais opposé wu face au peuple. waaw ah, bu baar baar bi ajoo ba ci kaw day faaw nga njol pour nga jot ko. faw nga wuti bagage foofu. <laughs> waaw fekk ka fa nekk fa. Mm. donc dire que aujourd'hui dynamique bi ñu nekk man am na ma si yaakaar bu baax il faut juste rek une chose ñu sécuriser wu par rapport. à nos voisins quand je le dis c'est pour que ñu garder les bonnes relations ak ñoom xam nga fi ma waxee. waaw non dina dinañ ñëw ci. benn benn communiqué bu ma gis ah. am benn communiqué bu ma gis dinañu si ñëw ñu wax ci. alors ba léegi bu mu defee si conseil des ministres bi eh, si euh, loi boobu xam ne day joxe souveraineté mhm. euh, économique.